par équipe Omar Diouane Fatick moo ngeem moo bu weex ceinture bleue ceinture rouge c'est Diourbel jël na tànk bi yaru na ko doot na ko ci suuf laay laay lan laa gaañ na ko ci épaule eh, gaañ nga waa Diourbel yow bu combat boobu eggee ñu préparé wu Siaka Fall ceinture rouge Dakar Abdoulaye Ndoye. Abdoulaye Ndoye Kaolack ceinture bleue. animation animation. taal taal. taal taal baa ma jël ko baa diggante Fatick ak euh, Diourbel moo nekk à gauche plateau A attention Dakar ak Kaolack ñoom ñaar ñu ngi lewtoo euh, Dakar daan na Kaolack déet Kaolack moo daan di Kaolack daan na Dakar quart de finale euh, Siaka éliminé en quart de finale par Kaolack ñu ngi ci beneen combat plateau A tournel tey ñaari caméraman laa am barki yàlla tey tey man maay bombu ñaari caméraman tey tey moo doon def direct toj dëkk bi ma doon def direct am naa troisième caméraman bu CNG mi ngi nekk ne à droite <laughs> ari sifle na Cheikh Tidiane Niang Fatick di dajeek ak waa Diourbel ñu ngi leewtoo Ada Dieng Ada Dieng Diourbel à droite ceinture bleue Cheikh Tidiane Niang ceinture rouge Fatick tenant du titre day takkaat day takkaat ceinture bi wala wala wala ndomb bi nekk ci biir la doon takkaat daf koy jam wala béjjën la def ci biir ngemb bi ñu ngi damante ay baaraam ñoom ñaar Cheikh Tidiane Ada Dieng Ada Dieng mbaj na ko ci doq mais loolu du saf si ñoom jàppante nañu tegante nañu ay bopp ñoom ñaar Aday Dieng Diourbel Cheikh Tidiane ñang fatik attention jël na tànk ma nag yee laa ilaaha illallah ak mën loolu jël tànk yenu dóor ci suuf bàcc bip <laughs> arbitre bi la na beneen quart de finale poids lourd Fatick ak Dakar Fodé Sarr Émile François Diokh muy franc à gauche ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñu ngi jàppante ñoom ñaar Fodé Sarr Fodé Sarr moom ren moom tournoi mooy loolu noonu. Eh, laay laay la laa daf ko bëggoon tour bëgg a enchaîner ak mbot Fodé Sarr wër na ko ndomba ñaari appui ñetti appui chute la jeex na chute <laughs> jeex na franc daan na mais fu Momadou Moussa Sall moytu nag mu jàpp dalay yenu billaay dalay yenu lu leer laa la wax gaskel gaskel mi ngi koy négocier da ngay yoot Momadou Moussa Sall jël na dànk gaskel bañ na bu la ñuuxoo rek nga am problème lu leer laa la wax démb am na kum fi ba tànk bi débatté wu gaskel ak Momadou Moussa Sall gaskel Kédougou waaw gaskel lan moo ko yóbbu Kédougou gaskel di séeréer dem Kédougou ah 4 appels 3 appels am na gaskel dafa rasu bàyyi ko fa bàyyi ko ci suuf mu mbaar ko tëdd ci kawam mooy fay dafa bëre ba génn saaku yi dañuy jàppante tànk di bëre combat bi xoolal chute bu technique nga fiy gis technique bal na dugal na ku nekk am nga benn avertissement Libidor booy fay combat bu metti lay doon non day met du yomb ay prix dip ci combat bi mënut a am mënul am naxante rek naxante rek ñoom ñaar physiquement taxaw nañu Libidor jël na ko ay yan no na ko é eh, eh. si bi la ko mbot <laughs> mbot la si dër bi <laughs> deuxième avertissement trois avertissement pour Boy Faye ah Libidor daan na ko lañ am ba ngeen spécialement pour Ziguinchor kii 66 kilos la kii est-ce que du 45 kilos sax <laughs> kii man moom man moom mën nañoo tolloo de ñoom ñaar ñu ngi léewtoo quart de finale boobu 66 kilos waa ñoom beneen combat bi Ziguinchor kii day kii da muy def ni day fudd wala day fecc Ziguinchor ak Fatick gem bi c'est pour Ziguinchor Ziguinchor Fatick ñoom ñaar ñu ngi lewtoo demi finale 66 kilos Fatick Ziguinchor man de mbëru Ziguinchor moo ma koy def mbëru Ziguinchor bi attention noonu la noonu la weexee nag waaw ah, noonu lay aaye xoolal seen coach ci jigéen la eh, war na la ndooba yenu na la daanuwul daf ko sànni oh na ko ndooma yenuwaat yenuwaat du ko nangu du nangu ñetti appi am na eh eh eh mooy yéen mooy yéen kii day lëmasu koom jaan kii day lëmasu koom jaan laa ilaha illallah beneen demi-finale 66 kilos Kédougou Kédougou mooy bëre fële ah Kédougou daan na da ko ci suuf si mel ni kuy naqal nit si ndox si géej. final 75 kilos Fatick ak Kolda Leyti mooy daje ak waa Fatick ñoom ñaar ñi ngi leew ci plateau bee bi la Omar Diouane Fatick Leyti Kolda ñoom ña ah moo yéen ak gaaw moo <laughs> Fatick daan na ko jël bu set kilo 75 kilos Kaolack ak Kaolack ak. ak kan ah laay laay la la péré na Kaolack daan na Kaolack daan na daan na. man dañuy bëree ba mu yaa nga dégg ay ngàddante réel réel ngay dégg day am sax mbéj ci pet mais ci la bokk parce que épreuve de force attention Assane Diop añ na ko eh, Assane Diop Assane Diop Momadou Thiam bañ na bébé laay laay la laa mbagg yi mbagg yi mbagg yi mbaa wekkeeku mbaa wekkeeku doole rek eh, eh jugal jugal oh quelle prouesse technique quelle prouesse technique Bébé toj na fi Bébé Diène toj na fi laa ilaaha illallaah doole liggéey na demi-finale arbitre sifflé na Fatick ak Kaolack ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ngi ñaan ñoom ñaar ñu ngi ñaan ñoom ñaar pare nañu Malick moo koy arbitré Kaolack euh, moo ñu wan ni ginaaw Fatick non Fatick moo ñu wan ginnaaw waaw léegi kawlak moo ñu wan ginnaaw moo ngeem moo ngeem bu weex bi <laughs> na la ko nax <laughs> nax na la na door na ko mbot mais demul wala ñetti àpp yi am na ñetti àpp yi daa am ku daan bleu wala rouge rouge daa mel ni rouge moo daan rouge moo daan nee mi ngi jooy nee na du dëgg moo daan Fatick a ngi ne dem ay mi ngi jooy mi ngi jooy jàpp leen si may ko ndox mu naan oh ndeysaan am na lu ko naqar nee na nga bàyyi ko bàyyi mu lay dóor da lay dóor na wax naa la bàyyi jàmbur déggoo ma ah, mu ne mu ne lan day def recours neen day def recours kaay fii kaay fii nga wax mi ngi jéem a sàcc tànk mais njool bi bañ na sàcc na bopp bi dem yóotu tànk bi attention naxante la jàppante bopp attention jàpp na loxo bi Dibakor ak René Ndour Dibakor kooku siiri dëgg la ah añ na ko añ na ko takk na biij ko biijal biijal daan na ko laa Cees am na oh tët tët tët daf ko takk séntiru ko ba mu dëgër këcc añ ko ba mu ñuuxu mu daal koy dóor ci suuf bip deuxième avertissement pour Ngor Ndep fay séeréer pur et dur Ngor Ndep fay séeréer pur et dur tegante nañ waat bopp ñaari avertissement bu ñettee nag ñu jox ndam bi Cheikh Tidiane ñu ngi nekk ci beneen demi-finale fële déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet lii du avertissement naa la fële la waroon daw avertissement pour Bébé Diène avertissement pour Sélé Mélé arbitre na ñoom ñaar e eh, mbéjante mbéj mbéj mbéj yaa ngi takkar naa si barki yàlla dañ doon mbéjante dañ doon mbéjante ku ci mer rek sa daan sa morom da lay daan waaw concentration rek nga tamit bañ mer e eh, dóor moo moo moo dañ koy bébé dañ koy disqualifié dañ kay disqualifié arbitre arrêté na combat bi na combat dañ koy disqualifié voilà avertissement Sélémélé deux waaw nu mu demee noon ah yow Sélé moo dóor da ko ngàdd oh, man pour man bébé jën daf ko daf ko dóor ah, xam nga dafa jaxasoo ma gis ay ngàddante tee na bopp tee na bopp bi Sélémélé Sele Sele da ngaa mer sànq de am nga ñaari avertissement Sele jël na tàng bi raam na Bébé Diène bàyyi na ko fa de lan moo xew waaw dafa raam def ñetti appi dala faa bàyyi nga def ñetti appi Sele mele Bébé Diène daan na la daa mel loolu lañ signalé de daa mel loolu lañ signalé de wala ah ragal recours dina am ci combat bi de Bébé Diène dafa génn bàyyi la fa sànq bi rëcc nga raam def ñetti appi ba def ñeent. waaw bleu bi mooy daan avertissement pour bébé Diène waaw parce que da ngaa génn saaku yi waaw dafa daw waaw boobu nangu naa arbitre waaw lii moom nangu naa professionnel ngeen torop waay waaw analyse technique ngeen def bébé Diène am na benn avertissement Sélé Mélé ñaar mu jàppee rek caaf xam bébé Diène ak Sélé Mélé bébé Diène moo gën a xees Sélé am na tànk bébé ko eh eh eh, eh. e eh, bëre suuf bëre suuf épreuve eh, de force doole da rafet laay laay lallaa Bébé Diène da ngay foo Sélé Mélé daan na ba toog ci kaam ñu ngi leew too ñoom ñaar ñoom ñaar ñu ngi leew too Thiès ak ñoom ñaar ñu ngi leew too cent vingt kilo ñu ngi leew too ñoom ñaar libi door la ñu ngi léewtoo ñoom ñaar attention eh, trois bi am na Libidor qualifié na en finale poids lourd cent vingt kilos. mbokk yi demi finale bu mujj bi moom la ñuy joŋante nii dernière demi finale de la soirée catégorie cent vingt kilos individuel Gaskel Kédougou moo ñu wan ginnaaw ceinture bu lan bleu. Franc François Émile Diaw Dakar ceinture rouge ñoom ñaar miinante nañu xamante nañ bu baax Adrien Senghor Fatick Kaolack fu ne daje nañ fa fépp lañ daje ñoom ñaar gaskel kor na ko ñaari loxo yi téye na loxo nday joor bu gaskel gaskel ak Franc Franc cent vingt kilos dañ leen cent kilos dañ leen éliminé Franc jël na tànk gaskel daan na ko Franc qui en finale kon ci Serigne Ndiaye kontaan na Franc sauvé na honneur bi gannaaw bébé Diène biñ ko éliminé en 100 kilos Franc ki se qualifie encore ki qualifie Dakar. élimination am lu ci gën a ëpp mooy ñàkk respect ki muy bëreel parce que daf ko daanoon daaw aller retour donc bi muy dem nee ko il faut nga jox ko cër waa ji ñemewul sa bëre mais boo ko joxee cër heure bu ñëw da nga koy gis. mais ñàkk respecté waa moo tax mu ñàkk combat tey. mais mais xam na ne Sélé Mélé champion la champion d'Afrique la kon du bi mu daanee quart de finale loolu gënu ko yokk mu mu xaw a yëg boppam. tuuti non parce que xam na ne ki muy bëreel champion la wax naa ko ne daaw daan ko aller retour donc booy bëree moom tey tant que joxuloo ko cër doo ko daan soo gisee ba def recours bi mooy moom bébé jën bi muy génn waa ji direeku na fi ma toog quoi li ma gis loolu tax ma dugal recours bi mais comme kay atteindre na moom ñàkk na da sa place individuelle na ko reyante rek. ni am ngeen ci problème. waaw chaque année dama ci am problème parce que loolu boo koy xool entre diggante Kaolack ci kaw kenn du moo gën chaque année mais maa ngi ciy gën a liggéey nag yaakaar naa ne suba am naa yaakaar ne demee même kenn ku daan sax ñi ci kaw dinañ ma assuré bu soobee. mais mais Libidor mi ngi lay mi ngi mi ngi wax ma la. Ah. soo nee du yomb. waaw li ngay wax dëgg la du yomb ci kenn yéen suba. waaw non na bu tëddee du ne la. Libidor Libidor kaay Libidor kaay nga ne du yomb yow kan. man ak du yomb xam na li ma ko wax. affaire de buxaate naka bàyyi du dara.